salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum internet yi maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant di leen ne ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. ok gars yi maa ngi jégalu. gën ngeen ma gis c'est vrai la ma waral loolu maa ngi sama projet yi surtout sama projet film bi nga xam ni annoncé woon naa ko ni dafa war a génn li nga xam ni moom mooy 2020 ñu ngi si phase tournage moo tax des fois doo mën a dugal vidéo mais nu mu métti métti dinaa def pour jox leen li nga xam ni moom ngeen soxla te ñëw wax si li nga xam ni moom mooy benn série ah man je peux dire moom mooy série bi nga xam ni moo ma dàqal si série sénégalaise yi boo jëlee li nga xam ni moom mooy l'ensemble moo di kan moo di mbetteel yaaxamte woon naa mu dellu bokku na sénégalais yaaxamte woon nañ mu dellu si te ne dañuy wax si mbetteel saison 4 balaa ñuy dugg si li nga xam ne moom mooy profond bi il faut ma expliquer leen tuuti la mooy mbetteel mbetteel première saison bi deuxième saison bi troisième saison ba quatrième saison boo xoolee non seulement day génne li nga xam ne moom moo di trading day nekk si trading dëkk yëpp mooy maanaam dëkk diaspora yëpp da ngay gis carrément ni mbetteel dañ koy suivre en France day dem ba raw li nga xam ne moom mooy youtubeur yi nga xam ne ñu ngi boobu ñu ngi foofu noonu en France ah, li nga xam moo ne tendance day dem ba raw li nga ngi Italie États-Unis Espagne parce que man suivre naa tactique yooyu te mbetteel saa yu dawee rek tous les Sénégalais de la diaspora même les Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal dañuy seetaan mbetteel kon ça que ne am na benn empreinte boo xam ne am na ko si li nga xam ne moom moo di culture sénégalaise deuxième point saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 moom mooy mennum série boo xam ni dérapé wul gisuñu ko si yeneen bagage yoo xam ni bokkuloon li nga xam ni moom la ñu commencé depuis première saison ba quatrième saison dafa nekk toujours si li nga xam ni moo di fil logique bi nga xam ni moom la déparé kon déjà ça veut dire ni pour man su ma ko doon classé si série bi nga xam ni moo ëpp sens si série sénégalaise yi je dirais ni mbetteel la bu ma a wax aussi tamit série bi nga xam moo ma dàqal si série sénégalaise yi je dirais aussi tamit c'est Mbetteel fa laa ko kale mooy maanaam moom mooy menum seri bi nga xam ni da ngay gis ni carrément personnage yi ce sont les mêmes maanaam naturel na benn naturel boo xam ni doo ko gis yeneen seri yi amul xeesal amul changement amul wane li nga xam ni xëy na dunduñu ko ça veut dire que dañ leen wan carrément li nga xam ne sénégalais dañ koy dund dañ leen wan ni carrément c'est le Sénégal yaa ngi biir Sénégal kon déjà loolu moom mooy li nga xam ni moom laay jox waa Mbetteel c'est loolu maa leen si gërëm di leen sant parce que ils m'ont beaucoup appris ils m'ont donné beaucoup de choses yoo xam ne xëy na umpoon na ma ah te jàng naa si lu bëri te déjà série bu nekkee à part nga xam ne moom moo di divertissement bi bu si amee ay leçons yu si génn bu ñu jox aussi tamit benn savoir ça veut que ni kon série boobu noonu je peux dire que ni c'est amul buzz bi nga xam ne yeneen série yi am nañ ko amul buzz acteurs yi nga xam ne peut-être yeneen série yi am nañ ko maanaam nit ñi ni ñu leen di toppee si Instagram ils sont pas trop trop trop trop social mais li ma mën a wax rek mooy ñoom wax dëgg fa yàlla ce sont des acteurs talentueux une famille boo xam ni départoon nañ de te bu quatrième saison bi jeexee di leen leen namm trop. bon teaser bi nag moo génn kon dugguñu ci série yi li ma leen mën a jox si teaser bi mooy on a vu que ni beaucoup de changements quoi gis nañ ni ay bagages yoo xam ne xëy ko woon on a ki nga xam ni moo di. Euh, Euh, Ndeye Ndiaye dem na sëy à la fin at ki nga xam ni moom moo di Mbandione euh, gannaaw bi nga xam ni paa bi dëddu na génn na am na gis nañ ni carrément aussi tamit jigéen loo topp topp góor loo songu songu góor loo ko sonal sonal sonal góor bi à la fin bu jengee day dem def li nga xam ni moom mooy l'opposé si li nga xam ni yow loolu nga buggoon maanaam bi nga koy song kon gis nañu aussi tamit Fadam ah nu mu métti métti lu mu xeex xeex xeex si saison yi passé lu mu xuloo xuloo lu muy jéem a marqué li nga xam ni moom moo di territoire à la fin Mandione takk na ki nga xam ni moom moo di Ndeye Ndiaye on a vu li nga xam ne nag moom laa comprendre gul le jeu naa ko aussi tamit ah balaa fin bi naa ni moom amoon na benn genre tactique am na benn affaire boo xam ne defoon na ko foofu pour obtenir dara si ki nga xam ni moom moo di euh, leena leena mi nga xam ni tamit dafa tombe si li nga xam ni moom moo di piège bi ah gis nañ aussi tamit leena comportement yi nga xam ni am na ka parents yi nga xam ni boo xoolee ñoom ñoo daan topp leena di bëgg lépp loo xam leena daan na ko def rek ah wala lépp loo xam leena daan na ko euh, réewandeem amoon na ko rek parents yi si boppam ñoo ko doon jàmm tey nag ëllëg si biir jot na ba nga xam ni réewande boobu nga xam ni daan na ko def nit ñi parents yi di si jàpp réewande boobu dafa retourner si li nga xam ni moom moo di parents yi on a entendu aussi tamit ki nga xam ni moom moo di Ndeye Sène ak ki nga xam ni moo di doom on les a foutus dehors génne nañ leen si li nga xam moo di kër gi te kër Papa Diouf la mujjee te wane nañ aussi tamit nouvelle actrice boo xam ni moom moo di yaayu jëkkëru Ndeye Sène kon ça am na benn affaire boo xam ni dina évoluer quoi il y aura beaucoup d'autres artistes yoo xam ni dinañ bokk aussi li nga xam moo di série pour raconter mieux mieux mieux l'histoire parce que gis nañu aussi tamit acteur principal bi mi di Papa Diouf à la fin day décédé mais bu décédé lan lay bàyyi si ginnaaw loolu mooy li nga xam ni moom mooy euh, teaser bi man demande mooy nan lañ ko war a tourner man c'est ça qui m'intéresse de plus parce que boo xoolee boo ma ñëwee tout de suite jox ni nouvelle ni diw dafa dee ah ba pare gis nañ si tamit ni Rouba day dee si biir foofu noonu ñu ngi continuer wax ni Papa Diouf day dee je m'attendais je m'attends je m'attends que ñoom ñu ñëw indi ñu li nga xam ne moo di histoire logique bi nga xam ne moom moo tax ba Papa Diouf de parce que la dernière fois bi nga xam ne gis nañ ñu Papa euh, gis nañ Papa Diouf ci film bi il n'était pas mort boo xam ne mooy mooy li nga xam ne moom mooy def link entre troisième saison bi ak quatrième saison bi comme ni ngeen toogee jël ngeen seen temps j'espère que bind ngeen ko travail ngeen bu baax ah kon ça ni loolu lañ nekk di xaar il faut ngeen jox nu lan moo tax Papa Diouf dee ci yan condition la ak yan rapport la am ak li nga xam ni moom moo di trois saisons bi en tout cas nous on attend seulement ça te dañuy xam aussi tamit lan moo nar rey Rouba Sèye kon ça veut dire que on a vu que ni ah ñëpp dee nañ en tout cas gars loolu moo nekkoon vidéo benn aperçu laa leen doon jox benn affaire bu ndaw laa leen doon jox pour ñu xaar li nga xam ni moom moo di mbetteel

ñu toll nii ah ngeen wax ma aussi tamit euh, ndax sama vidéo yi namoon ngeen ko je crois ñu bëri nag duñ ko nam mais je crois que am na ñu bëri ñoo xam ni namoon nañ vidéo bi loolu mooy li xam ni moom mooy moo ñu fi teg gars yi vidéo bi a ah, ah, finale bellissimo In tanti mi sparano dietro le spalle Li lascio fare solo Tutti figli di pacche Fantasticano con storie di blocchi Al suo livello pivello Non hai le palle e le spalle Per tenermi fuori dai giochi No